ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média bànneex lay doon ci ñun saa su ne bu ñu xamee ne yéen a ngi ànd ak ñun ñu ngee ñaan yàlla ànd bi yàlla ko yàlla saxal macha allah ñu ngi nuyu képp ku yàlla dogal ngay sunu kilifa ñu ngi lay nuyu di la ziyaara rawatina nag sunu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi ñu ngi leen di beral nuyoo. dem itam seeti kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gu rëy di leen nemmeeku di leen ziyaara yàlla mi dara tewul yal na yàlla yokk seeni fan lu yàgg yàgg yàgg yàgg ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yokk seen teraanga bu ko defee ngeen yàgg fi lool di nu gunge macha daaw xel itam dana dem ci ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw noo ngi leen di beral nuyoo di leen nemmeeku bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mi dara tewul mu génne leen foofu nu mu gënee gaaw bu ko defee itam seen réinsertion yàlla yombal ko lool ndax lépp mu ngi ci loxoom te macha allah li ko soxal rek mooy ñu koy euh, tàllal loxo di ko ñaan mu nuy may saa bu nu xëyee rek macha allah noonu bokk ñaanandoo bu ko defee yàlla dana nangu incha allah ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi bàyyi xel bépp malade bu nekk ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi ñu ngi lay nemmeeku bu baax a baax di la rek dolli wax ne la na nga na muñ ndax yàlla mooy tege nattu yi bu ko neexee rek incha allah dina ko dindi te ñun ñëpp moom la noo ñaan yàlla na nu ko yàlla defal yàlla wéral leen te bañ ñi nga xam ne itam ñooy acteur de la santé yi yal na yàlla sutural leen yàggal seen taxawaay suñu kanam saa bu nu xëyee ba toog fii am na ñoo xam ne ba noo yeewu ñu sax seetaan télé ndax tiis dafa dal seen kaw ñu ngi leen di màssalu bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu may ñu fan yu dàq yi incha allah ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom te tey ñu nekk ci njëggalu suñu borom ñu ngeen ñaan yàlla mu ubbil leen buntu firdaws yu yaatu yooyu am nañ ci yaakaar yàlla nu ko yàlla defal yàlla na yàlla yërëm leen yàggal nu fi ba ci kanam kanam kanam ci njub ak lu baax rek macha allah yàlla na nu ko yàlla defal suñu xel dana dem ci ajaratu Collé Ardo Sow mi nga xam ne jamono yi dafa nekk ci tiis ndax doomam bu góor moomoo dafa dafa génn àdduna ñu ngee ñaan yàlla suñu rakk jooju tam yàlla na ko yàlla yërëm ziyaara eh, El Hadj Pape Sambare bu baax a baax ak képp kuy njabootam yal na yàlla fees dell seen xol yi ñun liggéey bi léegi saay moo nuy téye ba nga xam ne sunu dem ak sunu ñëw du yomb ajaratu mami Linguère sunu wasila yi fi jóge yal na yàlla sàmmal nu leen ca fa ñu ne yàlla fay leen li nga xam ne def nañ ko ci àdduna sunu xel du jug mukk ci sunu maam wax dëgg yàlla maam Abdoul Aziz si mi fi jóge macha allah Euh, alamin yal na yàlla yërëm ko yal yàlla yërëm ko dolli ko leer dolli leer bépp kilifa boo xam ne dafa feesoon del suñu xol macha allah ajaali ngeen ñu ngee ziyaara waa Njaasaan bu baax a baax ne ci suba ba may ñëw rek maa ngi ci jot kenn ñu waxtaan bi neex lool ma macha allah waa kër Cheikh na Cheikh Sadibou suñuy xarit lañu waa waa waa Saloum suñuy xarit lañu waa kër Maam Baye Cheikh al Islam waa Cambérène itam suñu xarit lañu noonu la ñu dëkkee Tiwaawoon dëkkee ko tuubaa dëkkee ko fen mhm. ñu ngi ci weeru jigéen ñi maa ngi leen di wax bi bismillah ah, di kontaan ci teewaay bi jigéen ñi de fi mu ne moom ñoo xewle. dëgg la loolu daal lañ wax man daal gis naa dafa ba jigéen ji moom. Mm. ku ci xeesul da ñuul te ñëpp rafet. la mbedd mi xumb na de kër yee xumboon. dëgg la mbedd mi xumb na fi mu ne. dëgg la door nañu daal jërëjëf Diop jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar ak ëllëg. Mm. sama maam yàlla na mag Nelson Mandela te bu koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum na yàlla yokk leeram taas ñu mm. woon saawaan baawaan ci réew mi noonu lañ koy ñaanalee mbokkam ma xaritam moom itam yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem waaye ñu ngi ñaanal sëriñ Muntaqa Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool lool lool bàllay sax te nga yàgg fi lool te wér mboolem ak yow ak say rakk yëpp mm-hmm. suñu yaay di ngeen ci mer yàlla na gisee ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kamara jibante boo yàq jaa yàgg fi loo fi yàgg doyul mama mm-hmm. Kinushka yaay na ak njaboot gi waaye noonu la ñuy ziyaare suñu yaay Astu Jara mm-hmm. yaay Astu Seck mère Ndoy ak waa kër ga yëpp ñu ngi leen di ziyaar tey ñaan ñoom ñu yàgg fi lool te wér sama yaay Diop yaaba yow xam nga ne loo dund doyul mm. waaye taa Aminata Mbengue Camara itam kenn du yow mm. tey nag dañuy delluwaat amaat mbégte dëgg la toogaat ak suñu soppe bi mm-hmm. di soxna maam xari Diène axankay ah, xam nga barki dem rek yaa ngi koy tudd mënaan la doon ndaw teewuta am jom dëgg la joo dégg mu naan la su samay at bari woon ma def ndam buy atam bari woon du def tuus akay ah, dëgg ndaxte ah, mbir mi duy at mbir mi du leneen teel a takku rek am jom la dëgg la ndax ba ñu nee jatu leen xam nga soccet taxul fekk na ko moom mu boot ay loxoom moom soccet moom bañ naan jatu leen mu def nii moom bañ naan jatu leen bokk ci ah. moom daa juddu rek booti loxoom xanaa neex na Adja Linguère jërëjëf soxna maam xarit ci bëgg a ñibbi rek ma ma Adja Linguère dugal na la ñu ngi lay ziar maa ngi ñëw ci yow léegi léegi uh-huh. léegi macha allah ñu dalal taalibe Cheikh Bass Abdou Khadre ba noppi. Ah, bu ko defee ñu gën a yaatal waxtaan wi. jaajëf euh, Eva ñu ngi leen di ziar. di mm. ziar kilifa diine kilifa yi ci réew mi yëpp. Mm. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khadre di ko ñaan mu yàgg lool te wér. amiin yaa rabbal sunu waa xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak mm-hmm. waa Pire yëpp. di genre kilifa yëpp tey moom ginnaaw da nga am gan mhm. te temps bi bariwul dañ koy daal foofu rek dëgg la jigéen ñi ci réew mi yëpp dëgg la ca TFM nag mbokku téléspectateurs yi di ngeen ci dund spécial journée de la femme waaye dañuy wax mois bu spécial pour la femme mën ngeen a ànd ak groupe Futur Média am ci or te ku wax jigéen xam ne or bokk na ci lu ko soxal macha allah mhm. bu leen fàttee ngeen wootee ci 88 628 22 22 88 628 65 ñaari yoon wala ngeen woote 88 628 04 cinq gis ngeen bi joué rafet yi balaa ma fee jóge bii danaa ko def tirage au sort ñi ma neex ci biir kër gi mën nañ ñu dugal seen tour ñu jox leen ko bii nag moom dama koy may benn spectatrice ndax moom la ñu koy euh, jox pour fête 8 marsam xaw ma kan lay doon tey mais Eva Trade bëgg na mayee wax dëgg yàlla bàggu or ku ma xam-xam ne balaa ma fee jóge danaa ko mayee dañ ci ànd nag ak bijouterie Yoro Lam ñoom ña nga nekk ci 33 821 60 04 ñoo ñu Tra moo leen xam ajaratu maam xarit Diène kontaan ñu ci dalalati la nee saa bu ñu lay dalal anglais yi ñu lay dalalee dafay bare waaye bu ñu lay dalal li tax ñu gën la dalal mooy la nga la ngay représenté ci xale yi la ngay defal jigéen ñi ànd ceeg ñeneen ñeneen sa gannaaw waaye ñun yow la ñu teg loxo yow la ñu gis moo tax ñu woo la ci plateau bi jóge nga ci formation yàggul dara c'est domage image yi euh, image yi jotuma ko mën a jox Mia Ndour hmm. nekkoon dama ko ko doon jox wone jigéen fan la nekk ak fan la war a dem ñu ngi lay wax bismillah Diène lu may wax ci xaagaan yi nga bokk wala ci ci nu may waxee. naka waaw xaagaan piir laa moom xaagaan piir <laughs> euh, doon doomi sumbaar itam. waaw euh, maa ngi ko wax maa ngi maa ngi leen di nuyu. di leen sant ci invitation bi. jërëjëf euh, di leen sant ci dalal bu rafet bi. Mm. di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yi. Mm. di itam def nuyu bu spécial jigéenu Sénégal yëpp jigéenu àdduna bi mais jigéenu Sénégal particulièrement surtout jigéen ñi nga xamante ne euh, nekkuñu dëkku taax ñu ngi ci àll bi euh, maa ngi nuyu sama jigéenu Kédougou yi Eh, ñoom maire Aïcha Bousso ñoom eh, Fanta Soare di nuyu eh, ñoom waa Salemata Kédougou Banda Fassi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu mhm. di nuyu itam sama jigéenu ndaamloo yi ma jóge démb Euh, Adja Fat Sarr maa ngi lay ziar ak 750 euh, femmes yi mu encadré fédération wu euh, Ndamlo Bambilor ak village yi ko wër mhm. di nuyu sama cousine Fat Fall moom mi nekk foofu itam Euh, di nuyu itam euh, jigéenu tax yi ak euh, ñi leen di jàppale mhm. ñu nekk ci institution yi maa ngi xalaat sama yaay Jeynaba bu ONU Femmes mhm. Roqaya Euh, Oulimata Sarr mhm. Diana mhm. nga xamante ne seen i liggéey mu ngi ci euh, vraiment seen loxo jógul ci jigéen ñi euh, di jox nuyu spécial sama yaay mhm. sama ñaari yaay yi tukki aadama ak Awa di nuyu itam képp koo xamante ne sopp nga soppe nga Eva wax ne que thématique 8 ren bi Euh, dafa laal femme activiste maanaam femme yi nga xamante ne dañuy jiite euh, di yëngatu euh, di défendre ay cause ci droit de la femme mm-hmm. ren nag waa Nations Unies surtout ONU Femmes jagale ko mm-hmm. képp bépp jigéen ba nga xamante ne yaa ngi ci monde rural bi itam ñi nekk ci dëkku taax maanaam les femmes rurales et les femmes urbaines mais jigéenu activiste waaw ren moom ñoom lañ ko jagleel. maanaam bàyyi ñu benn jigéen ndax ah, ñaar yooyu am. ka nekk euh, fële ca ca ki nekk ca dëkku taax ak ka nekk tam. ci ci boo weesee dëkku taax yi. dëgg la mhm. xam nga ba nu waxee 8 mars ñu bari dañuy laajte pour lan ñuy nee sargal jigéen euh, dafa nekk loo xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy xeex depuis. su may su may saytu dañu lay wax première femme bi réclamé droit des femmes 1910 la woon depuis 1911 te boobu sax date bi du woon 8 mars mais 8 mars mu ngi ñëw ak euh, Nations uni waa Nations Unies ñoo ne daal ci fan yi nga xamante ne moom la ñuy jël di ci sargal am na journée de l'enfance am na et cetera Euh, nañu jël tamit benn journée spéciale te loolu depuis les années 70 nga xam ne loolu yàgg na am na ñoo xamante ne fekkul ñu juddu. Euh, ñun sañu classe gi année yooyu ci ci côté yooyu la ñu la ñu juddu. Euh, donc mu nekk loo xamante ne boobu ba tey. Mhm. li tax ñu koy wax dafa fekk ne dafa am ay différence Eh, dañu gis ne jigéen dafa néew doole. te néew dooleem. Eh, moom i Linguère dañ koo gis ci anam yu bari. parce que ñun jigéenu taax. dañu am chance jóg ne ñu ngay liggéey yi eh, ñi nekk ci àll bi ñu ngay liggéey. mais liggéey boo xamante ne dana leen rapporter ñoom. seen temps boobu lañ leen mayul moom lañ leen libéré wul. bu ma nee libération de temps mooy lan. xam nga temps ba ngay jël dem di uti ndox ca teen ya. temps boo xamante ne euh, du loo xamante ne da lay andil euh, loo xam da ko mën a jëfandikoo moomal ko sa bopp dencal ko sa poche. Mm, sañ naa la ne nga teg loxo foofu. ma ma ma ñu dalal kii ci ligne bi ba noppi. waaw ñu ñu soog a ñëw ñun bu thème boobu weesee ñu ngi jël itam comme waree fu jigéen ci biir société bi. nga xam ne c'est large. Mm-hmm. moo tax di nga laal femme urbaine. Mm-hmm. laal femme rural mm-hmm. waaye nanu ñëw ci kii ba noppi salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. waaw maa ngi lay dégg bu baax. waaw ñu ngi lay déglu ajaratu. waaw man la Aram Sall maa ngi dëkk Kër Ndiaye yu baax yi ngay joxe rek si laa bëggoon. li ngeen mhm. mhm. ngi woote Kër Ndiaye Lo. waaw waaw. man danga ma neex dama la yàgg bégee. Mhm. waaw danga ma neex.

Euh, maam xare ngi doon indi ay leeral tuuti ci luy luy yombal nekkinu jigéen fa nga toll woon ma fàttali téléspectateurs yi ne ñu ngi ci weeru jigéen ñu ngi ci semaine jigéen jëm le 8 mars maanaam suba sax la ñuy wax. Mhm. waaye li ñu ci waxtaanee mooy wareefu jigéen ci biir société ndax jigéen xam na boppam lii ci jigéen yépp macha allah yàlla njëkk fonk jigéen maam xarit Diène moom mi jël suraat tuddee ko ko. wallaay billaay la surat les femmes di ci wax lu doy waar. di ci mhm. tudd non seulement jigéen mais tamit di ci tudd miskin. Mhm. Euh, di yàlla di di di di ñaaxaat. Euh, jigéen ñi ci seen wareef mais tamit góor ñi ci seen wareef ci jigéen ñi euh, muy loo xamante ne dañ ko fi fekk xam nga bu ñuy wax diine islaam ñu bari tey bu ñuy seetaan médias yi surtout médias internationaux yi dañuy xalaat ne que euh, islam dafay delloo jigéen gannaaw alors que islaam dafa taxawal jigéen mm-hmm. défendre jigéen ba ci sallallahu alayhi wa sallam sang bu sangi sang yi nga mm-hmm. xam ne dernier waaraateem nu mu ko clôturer ci jigéen lay wax kon ngeen xam ne que jigéen dafa nekk euh, loo xamante ne yàlla moo ko bëggal boppam sàmmal ko boppam mhm. euh, soxna Eva booy wax ci wareef euh, wareef ci mhm. boppam mhm. wax lan la jigéen di def ci société sénégalaise dafa yàgg man damay waxtaan ak mag yi daan waxtaan ak sama maamaat sa maam Kalm bi yal na ko yàlla yërëm amiin yaa rabbal mu may wax nu ñu libéré Sénégal ndax Senghor ba muy ut indépendance jigéen notamment jigéenu lébu yi dañoo dugg ci Macky bi xeex ñooñu ñoo daan yor këll yi di tux yore lamu xaalis yi ci seen tànk kon taxawaayu jigéen dafa nekk surtout ci société société lébu bu doon société matriarcale euh, société séeréer doon société matriarcale mu doon loo xamante ne tey bu ñuy xool même jiggante jigéen en Occident ak jigéen fii. Mhm. seeni soxla du bokk gis nga bu ñuy def. seeni réalité lu ñuy tuddee autonomisation de la femme. di mhm. wax. Euh, Euh, lu ñuy tuddee empowerment parce que anglais dañuy dañuy wax moo power mooy wax pouvoir nan dañuy joxee jigéen pouvoir euh, da gis ni que jigéenu Occident tey dafa mel nii dafa am benn xaw a recul ci seen ci seen statut parce que ñu si bari dañuy wax ne que ñoom li ñu gën a soxla mooy ñu defal leen ay formation ci nan la ñuy wóoloo seen bopp alors que ñun du wax loolu ñun généralement dañuy taxaw wóolu sunu bopp ba pare mm. xanaa kay dañuy wax accès au financement nan la ñuy def pour am financement nan la ñuy def pour am formation nan la ñuy def pour am information très bien Adja Linguère euh, gis nga Mame xari fi mu dikkee ci waxtaanee wu mm. waxtaanee jigéen mm. ci biir société jigéen dans le monde kon su femme africaine bi góorgóorloo tuuti mm. am na lu mu ëppalee jigéenu euh, nasaraan bi nanu ko wax nanu ko wax am na ñu euh, liñ naan l'Afrique est riche en culture mais l'Afrique est très colorée de part et d'autre fu dem Adja tey bu ma la jëlee yow mii moom moom moom euh, Adja Linguère bu toogee dañu naan kocc ba sëtu kocc bar dikk na te dana wax ak ñu danañu caxal danañu léebal danañu danañu yooyu yëpp ànd ak sagesse ñu am suñu ay mbir yu ñu moom salaamaaleykum allo naam maa ngi fi man maa fan ngay woote allo maa ngi wootee Ziguinchor. ah naka waa Ziguinchor. Uh, ñu ngi ci jàmm. kontaan nañu ci jot leen. ñoo gën a kontaan. Mm-hmm. waxal ma tonton Ndoye Ba man ma soppeem laa sax saa su nekk damay <laughs> dëgg la jaajëf. <laughs> merci beaucoup. noo tudd. moom man Ajuma Wade laa tudd. Ajuma jaajëf waay. ndeysa man neex nga nag fa dëgg neex yàlla chaque jour dama lay déglu noo bari nga ci morom nag jaajëf bàyyi waxal ma bàjjen waxal ma taamani man mani dinaa ñëw mu jàngal ma ci waxam bi man bi waaw waaw allah kii dina guddee de dama nekk ci jàng jërëjëf ajjuma ndeysaan waaw maa ngi di bëggee bu baax nag maa ngi wax man kontaan naa bu baax wax ak tuleen doy waaw ñu baax ñi rek man bëgg nag. très bien. koo gis ku ku mu bëgg rek nit ku baax la. dëgg la man baax ñi rek bëgg dëgg la macha allah ndax yow sa bopp rek yaay mbaax. dégg nga Adja ah, euh, ñu ngi dee waxtaan maa ngi wax léegi ne bu ñu toppoon léegi kocc rek ci ñu bàyyi yépp jigéen bi dina jëriñu itam mami Linguère. dëgg la dëgg la xam nga soxna maam xarit indi na lu am solo lu am solo mhm. mooy que ñun bu ñu gëmaatee suñu bopp rek maa ngi la koy tooñee démb naan la li ma gën a ragal ci àdduna mooy mhm. nga yenu paanu ndox ba pare jël pot téye ko ci sa loxo di fëgg buntu kër yi naan may ma ma naan jéegaane yëfi jàmm nga sonal sa bopp di nga sonal ci ñi nga jëm mhm. mais man li ma gis ci ci waxtaanu jigéen yéeg yëpp mooy que Eva ñu delluwaat ci kër yi tamit. ci kër yi ndaxte man dama jàpp ne ñun jigéen bala ñuy war a mën a bég dëggantaan war nañoo mën a yar suñu njaboot. Mm-hmm. ba suñ ko nee jàkk ci biir ne ko jàkk ci biti xam ne ñun lii ñun ñoo ko defar. xam ne ñun lii ñun ñoo ko moom. Mm-hmm. xanaa xamoon ne société bi mënul neex te yar yi génneewul ci biir kër yi. Mm-hmm. parce que école bi nañu bàyyi école bi mooy yar école bi dafay mottali. dafay indi xam-xam. dollil la ci yow li nga ci def mais yar bi mi ngi war a tàmbalee ci biir kër gi naka nga koy defee naka ngay toogee naka ngay waxee naka ngay jàngee àdduna pour que bu ëllëgee nga mën a ànd ak ñëpp mais naka lañ lay jàngalee sëy gis nga gone jigéen yi ci bari ci bi ñuy door jàngaluñ leen lan mooy sëy dañuy toog ba nekk mag seen morom mu ñuy àndal wala kañ bokkal classe leen koy jàngal su boobaa ay toj-toj la ñuy def ndax yenn yi ngay dégg léegi yépp daawoo ko woon dégg bu njëkk te pourtant suñu maam yi dañ leen ko daan jàngal ci biir kër yi léegi nag boo waxee ñu ne talatuma ko xale yi amatuñ kilifa nañu dem njabootu kanaara laa yor dama leen di jiital kanaara bu lay woo mat ci pax rek la la jëmee ndax doxam gaawul boole caag la muy def xamul fan la jëm ma jàpp ne xëy na tey dañu waroon a dellu siwaat buñ mënta indi yépp itam ndax ubbeeku la ñu soxla mais bus naa dégg soxna maam xarit di ko fi wax booy ubbeekoon nga xool nit ki la mu baax le nga jël ko yow boole ak li nga am mais bu mu tax mukk nga fàtt nga dàjjati racine ba parce que yow boo dajjatee sa racine li nga fondement amatoo fenn foo ko teg donc yow looy dolli rek na fekk nga gëm sa bopp yow ba pare na fekk nga xam sa bopp yow ba pare na fekk nga téye sa ay valeur loo ci tegaat mu neex mais yow xamoo sa bopp mënoo wane kenn kuy jooy mënta nax kuy jooy kon fondement ak base daal mooy lépp mhm. bu fondement dëgërul dara du dëgër. dara du baax euh, Ndoye Ba. oui waaw euh, dégg naa la sànq ngay wax naan. Afrique dafa riche. te ñun ñëpp dañoo juddu fekk ñu naan Afrique dafa riche. Mhm. koo wax mu ne cosaan ak aada. Mhm. koo wax ci maamam loo xam ne du yoon mu daal sa kaw. loolu lañuy ñuy bàkkoo ñun ñëpp. Mhm. mais duñ ko jëfee. ñun sa ñun Afrique surtout bon puisque affaire jigéen la ñuy wax. dañoo dañoo maanaam dañoo bëgg bëggante wuñu bëgguñu bëgguñu suñu yëf. dëgg la maam xare ngi wër àdduna Sénégal gépp di leen jàngal nan la ñuy transformer nangam. dëgg la pour jigéen ñi mën a liggéey. suñ ko transformer ba pare teg ko ñun duñ ko jënd. loolu dëgg la. jigéen ñi li ñuy defar ci dëkk yi. mi ngi nii mi ngi lu xus ci dëkk bi. loolu dëgg soo demee supermarché. wax ko ca kaw soo demee supermarché ci grande surface yi. Mm. jënd la jógee ca tubaab ba moo ñu gën a mm. jënd li nga xam ne mm. maam xaree koy defar fii. ndax boo liiree maam xari jéen nga ba ko xam yaayam xami maamam xami doomam xam bu fekkee fa mu koy defaree. loolu dëgg mais soo demee fañ koy jaayee doo ko doo ko jënd. dëgg da ngay bañ mu avancé léegi nga jënd dangay gis koo xam ne sunu ginaar ginaaru kër yi ginaaru kër yi ginaaru wolof yi ñu naan ginaaru wolof. poulet du pays. da ngaa gis ku ko jënd. nee nañ day yéex a ñor laaj ma li ta ah jërëjëf. léegi nag xam nga tey jii da ngay gis jigéen goo xam ne day jël ay ginaar poulet du pays di ko yar këram mais pour mu jaay ko problème da koy mujj togg lekk ko. mais ki nga xam ni eh, ñun jigéenu Sénégal dem ci grande surface fekk ginaar gu ñu congelé ba mu wow. mu jënd ko toggal ko jëkkëram moo ko gënal mu yar ginaar biir këram. togg ko ginaar googu dangaa ngaa xam fuñ ko àmbalee. déedéet est-ce que wóor na leen sax ginaar la. c'est ça c'est que ñun bëgguñu lu fi nga nekk am na solo waaye dama lay bàyyi nga jël kii ci ligne bi nga dellu si waat. allo allo allo allo. mu mel ni kooku rëcc nañu du ñàkk a. ñu ngi lay ñu ngi ci ligne bi ah mi ngi ci ligne bi allo. fu ne nii nag dem na waaw nga maam ñoom jigéen ñi ci àll bi ñi ngi liggéey de classe ak maam xarit yi ngi ci àll bi li leen jàngal ñuy defaree saabu mhm. ñi nu ñuy defaree buy bi ni koy transformé mhm. su foire bi jotee da nga gis jigéen ñu bari jóge ci région yi ñëw di defar loo xam ne ñoom ñoo ko defar ak seen loxo mais kenn du ko jënd te seen moroomu jigéen ñi ñoo leen waroon a jàppale di ko jënd mhm. mais am na ay diw yu ñuy defar yoo xam ne tey jii jënd diw ba diw jënd diw ba jógee France moo leen gënal jënd diw bi nga xam ne fii Sénégal gi sa moroomu jeeg moo ñafe uti xam-xam ba xam nuñ koy defee defar ko ak ay produits naturel fii ci dëkk très bien jël jëlal ki ci ligne bi baan nag fii ak dindiwul ah, di ngeen yàgg di ngeen yàgg bi ngeen yàgg 8 mars wax nga dëgg 8 <laughs> mars yi des na yu bare jëlal jëlal ki ci ligne bi allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo oui salaam maa ngi sant yàlla bu baax. waaw ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di fay. waaw ñu ngi nuyu tamit Ndoye Bane. baax. a baax ci xalaat yi que chaque jour leen di déglu moom Boubacar ak. dëgg la wallaay dëgg la. waaw man itam ñun tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. jërëjëf. waaw dama bëggoon participer ci thème bi. Mhm. Mhm. baax na. allo. allo oui yow rek la ñuy déglu ajaratu. waaw ma ne jigéen moom ci société. Mhm. dama naan man li may dañ mhm. naan taaru jigéen mooy sëy ni comme mami di wax chaque jour mhm. Mhm. taaru jigéen mooy sëy te yàlla tamit bu defee ñu ànd ak suñu ay borom kër di sëy sëy muñ moo ko lal jigéen da ngay muñ jigéen da ngay góorgóorlu jigéen da ngay yar ay doom jigéen da ngay am sutura parce que sëy sutura moo ko lal muñal tam sa borom kër loolu moom mooy lii sëy jigéen tamit warta toog na yàcc di xaar jëkkër ji la jox parce que àddina moom loolu amatu fi. Mhm. sa jëkkër day jàpp gauche nga jàpp droite. Mhm. dëgg la. bu xëyee suba. Mhm. toppatoo sa njaboot. ah bu yóbbu école nga yóbbu leen bu ñu dee magu jëmit bala ñu dem nga toppatoo leen ñu set lekk soo a jàngi école nga contrôler seen école. dëgg la. kër tamit borom kër mag ñi ñoo ko man sama yaay moo ko kër lenn la am ci këram mooy baat biir bu fees yëree set ak lal. loolu de mhm. dëgg la. di déggalit sa borom kër yàgg sa njaboot be nga xam ne dinañ respecté seen i waajur xaw ma respecté seen baay. Mhm. waaw. nga yar sa doom jàpp sa jëkkër. waa liggéey man li ma gën a compte ci jigéen mooy. jigéen bu toog na yàcc jigéen dañuy góorgóorlu. dëgg mhm. dëgg. nga góorgóorlu googu ngay def ci la sa ay njaboot di nawe. dëgg la. jigéen da ngay bàyyi di wër di ñaan wër di lekk wër di àbb. dëgg la. ku am ngor doo def loolu. dëgg la. nit da am ngor. Mm-hmm. nga fonk sa borom kër. Mm-hmm. jàppale sa borom kër. téye sa borom kër yëkkati sa jëkkër foo xam ne yeggu fa mais jigéen moo koy def. Mm-hmm. jigéen mooy tax ñu respecté sa borom kër foo muy liggéeyee. ay mbokkam respecté ko société bi respecté ko. loolu dëgg la. loolu mooy lii jigéen mooy waree fam ci société bi. nga jóg jafe liggéey ko mën na koo tane ne nga dimbali ko. booy liggéey nekk ci sa kërit jigéen joo mën a jël teg ci sa wet. Hmm. wax ko lii mooy àdduna. loolu dëgg la jàppale sa jëkkër jàppale sa njaboot. macha allah. loolu lii àdduna. dëgg na mais nekk jigéen te yaa nga ca xew yaa nga ca fee yaa ngi dootal sa njaboot. Hmm. xamoo ci lu ñu ne. Hmm. xamoo ndax ñu ngi lekk. xamoo ndax ñu ngay jàng. doo dem seeti seeni not non non non jigéen du loolu. dëgg la ko teg ci kër mën nga nag liggéey mais liggéey du tere la la war ci sa kër nga def ko la la war ci sa borom kër nga def ko. ah kilifa kilifa mooy looy dugg sa borom kër yëg ko looy dugg sa borom kër xam ko loolu mooy tax ëllëg nga am njaboot gu barkeel macha allah ak goro yi 70 yi ak goro yi 2000 yi du benn de. hôpital ba mu gaañu ci sama loxo. <laughs> tey sama njëkk yi ma am. ak njëkk man maay seen ndey. goro yooyu ku ci nekk nga sa waajur mën koy jox. est bu korite jotee la nga loolu muñ la. Mm-hmm. xale yu jigéen yi dem leen ngeen dugg seen kër goro yi. goro yu njëkkee meer. ngeen dem dugg fa sëy jàngal muñ sëy. meer loolu ngeen ko jàngal leen ko ngeen xam la Mm-hmm. parce que nag da ko fay xaar sama yaay moo naan loo fa xaar fekk ko fa. Mm-hmm. bala mu naan nuux dugg dina la nax na. nax na kon xale jigéen yàlla bi ngeen sëy ci seen kër goro yi ngeen toog nag jàpp seen goro comme seen yaay yi. Mm-hmm. li ndoy baan wax chaque jour goro yu baax yi ñu ngi fi. dëgg la. goro yu baax yi ñu ngi fi téye. mais dañoo bareetul nag dañu téye bareetul ñu xam bu dégguma de appartement an kay. mais yaay yi nañu yar doom yi. mère. Mhm. dëgg la daal muñ sutura toog gëm yàlla doylu ci àdduna xam ne lu la yàlla jox rek nga xam ne loolu la ma yàlla jox dëgg la mhm. man daal loo doon sama participation te te rafet <laughs> solo plateau bi trop maire bi da maire bi dafa bi dafa baax. moom léppam ci ful ak fayda la teg baax dafa baax rek mais. Mhm. goro yu njëkk ya. dëgg la goro yi 70 ya ak goro yi bokkul. maire yaa may seetaan. 70 ba léegi ñu ngi sëy fañ toog jóguñu fa. Mhm. waaye dañoo bëggoon lañ ñàkk seen doom bi am ko maanaam ñoom sëy nañ sëy bu metti la nga xam ne amuñu ko woon ci seen sëy li ñuy bëgg wut ci seen doom yi moo tax sëy da nga bëgg a wax ne léegi saay suñu yaay yi mën nañ ñoo nax itam. waaw ñoom la ñu accepté woon ñu bañ ñu ko accepté loo waaw parce que ñoom ñoom ñoom seen sëy neexul woon dañ daan toog di tarbiyu seen borom kër mais ginnaaw toog nañ ba am nag jigéen gu doom bu rafet dañuy bëgg commercer doom ji te kenn commercé wu leen. benn xale bu jigéen dañu ko woon yëpp yaay daal bu maire bi ni ko soo far wi da koy bàyyi ndax mënu sax mun laa sax jëndal nangam. mun ko yaay yaa ne ma woon jigéen day muñ ndax ba ngay sëy si sama kër papa amul woon toilette. jëlaat ci ci yow nga muñ loolu yow yaay. Mhm. te bëggoo sa doom muñ loolu. jërëjëf. Mhm. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen de. ñu ngi sant yàlla bu baax. sant yàlla. Uh, maa ngi en bu baax yaa ngi en direct. waa na ngeen def nag. Uh, ñu ngi fi waaw ma grande na nga def. na nga uh, ñu ngi lay mhm. ñu lu bëree bëri. man maa ngi woote depuis la Mauritanie. Mhm. Ah. maa ngi fi jàmm ak salaam. alhamdulilah bisimilah bisimilah wan ni bik. Donc, euh, on est là avec une a un frère. Machallah. donc dafa doon participer di leen wax ni thème bu ngeen wax thème bu baax la daal dafa jigéen ak ku mu mënti doon muy bi sénégalaise bi mm-hmm. dafa war a xam boppam mm-hmm. xam ni jigéen mooy lu précieuse la daal donc xam boppam xam ni aussi euh, yàlla moo ko moo ko defar war a gën a def daal. Mm-hmm. donc di leen encouragé ci émission bi et puis di wax euh, euh, tout le groupe dal félicitations pour seen émission yi et tout maa ngi di tous les jours. Mm-hmm. et je vous encourage et puis bon courage aussi. Mm-hmm. merci beaucoup kontaan nañu ci jot leen saa su ne. Euh, Ndoye Bane am na fu mu toll woon. dégg nga encore euh, man sama wax lépp lépp mooy jigéen ñi seen problème li ñuy dund ñoo koy teg seen bopp. te dama koy répété di ko répété di ko répété fii bëggante wuñu seen biir. Mhm. di ngeen yàgg 8 mars. comme maire bi da ngay gis goro boobu buy def lu bon doomu jabaru jabaru doomam. Mhm. njëkke buy def lu bon. Euh, jabaru frère am mm-hmm. maa ngi la ko wax démb goro bi taal néegu néegu jabaru doomam mm-hmm. démb démb démb démb mm-hmm. ma la fàtte yónnee image yi ngeen ma nga di man la bàllal ma démb daaru musi eh, umpaañ bu jël ndox mu tàng xëpp ko jarbaatam bu jigéen du yoon lépp ci jigéen ak jigéen ñi lay doon dëgg la ngeen di xool seen jëkkër di leen diviser ñaari jëkkër ak wut jëkkër ak jabar a ngi fi. Mm. seen jëkkër nekk ci ginnaaw di leen di leen di leen di leen di leen féewale. Mm. moom moo tax ngi di xuloo. Mm. su demee wax kii lii dem wax kii lii ngeen xëy xëy suba di xuloo. dëgg la moom muy muy toog di ko naan mais pourquoi doo leen bañ doo leen bañ loolu. dëgg ngeen dem ci entreprise yi. di liggéey di jëwante whatsapp bi jëw dong ngeen fi nekk. yow kese <laughs> xanaa dangaa dee xanaa ndoy baan da nga jot ci ki ma naan Evatra tem ngeen tem yëpp mais j'aimerais bien que ngeen tem jëw maa ngi ko jot à 9h du matin dafa ci réew mi nee na ñu def ñu tem jëw jëw portable bi ci portable portable dafa gën a yokk jëw ci réew mi whatsapp gën ko anti amplifié jigéen goo ci jël téléphone am fi mu nii ma ngay jëw morom ma nit est warul jombale boppam wax loo xam ne bu boroom dikkee doo ko ko mën a wax maam xari jël awa loolu dafa nekk encore ci diine bi nga xamante ne eh, moom la ñu bokk muy diine islam hmm. loolu dafa am lu ñu ci wax lu leer lekk nit dëmm toog di jëw nit ngay wax ci nit la nga xamante ne nekkul dafa nekk un des péchés capitaux ci islam donc loolu moom lu ñuy teg fële la mais xam nga mën man may dellu ci soxna Mami Linguère lu mu wax sànq bismillah jigéen ñi ñooy yar te jigéen day yar jigéen day yar góor. donc dañu war a xoolaat yar yi. moo jur yélimaan. Euh, xam nga bu ñuy wax euh, tey différence entre góor ak jigéen. ak société bi nu mu nu mu évoluer tey sa doom. yow xamuloo ndax di nga fekkee ñun ñëpp dañoo dañoo jur bëgg fekkee seen ëllëg mais xamuloo ndax di nga fekkee wala doo fekkee donc am na la nga xamante ne ci li mu doon wax dafa nekk savoir vivre doo ko jàngee école savoir être doo ko jàngee école donc loolu jigéen ñi ci boppam ñi nga xamante ne elles sont maanaam dañu jur ci ñooñu lañ koy xaar te dafa nekk sa devoir ndax ni la islam di waxee mhm. sa baay daf la war a tànnal ndey mhm. soxna dañ koy tànn mhm. tànn boobu itam ci doom ni doom amalee ak ay wéyjuram noonu la wéyjur amalee ak euh, doomam ci nan ci nanga nga koy yaree na nga koy tettee na nga koy xamale àdduna tey tey da ngay gis man damay gis góor ñu bari ñoo xamante ne bu ñu yërëmee seen jabar yi rek fekk na dañoo yërëm seen yaay yi loolu dëgg la man sama boroom kër macha allah ndeysaan yal na ko yàlla yërëm daf ma doon wax da daan cuub di jaay di jox yaayam balaa mu daan jàngi da daan rootal yaayam ba tax na xol bi toj ci jigéen ci yërmande jigéen. Mhm. gis nga 8 mars bi nga xamante ne ñu ngi koy jublu muy suba. Mhm. manifestation yi ñu ciy def ci àdduna bi. Mhm. fi mu nekk nii. xam nga boo dee xalaat yaa ngi xalaat femme rurale dafa sonn yaa ngi xalaat femme euh, pays sous-développé dañoo sonn mais xoolal jigéenu États-Unis yi taxaw lan la ñuy wax ci mbirum harcèlement sexuel te awal loolu dañ koy war a wax fii ci Sénégal. Mhm. ndax lan bureau yi ndoy bàyyi di wax léegi jigéen ñi comportement yi ñuy am ci bureau yi mais dangay am tey sa patron pour nga am. promotion mhm. il faut nga jaar ci canapé bi li ñuy waxee promotion canapé mhm. mais loolu dafa dafa doy waar xeetu violence ah, bu mag la violence la te jigéen ñi am jigéen yoo xamante ne dañu ko nangu ah, ko may doole te nangu boobu tey ci la ñu war a wax parce que bu ñu demee di wax 8 mars di wax droit de la femme. di wax te te sama yaay. li mu ah, wax sànq ci ci ci bi. Mm-hmm. nañu ko jël ba noppi ñu delloo la kàddu gi allo. allo bonjour. bonjour madame. voilà ma naka. Marie Bernadette Diouf. Marie Bernadette man dama lay wax Bérou. <laughs> ah loolu lañ may wooyee sax. Ah, <laughs> voilà man maa ngi dëkk Scature Bam. très bien. waaw ma bëggoon participer ci émission bi. yow rek la ñuy déglu. voilà bon amoon na benn soxna bu woote woon tànk. ma ne nag comme man ci jànk yi laa bokk xaaral ma woote. Mhm. man nag amaguma jëkkër mais euh, xam naa bu baax rôle femme lu muy jëriñ ci société bi. Mhm. waaw léegi ma bëggoon participer rek pour wax ni ñun jigéen ñi surtout jigéen ju ndaw ji. nekkul ni dañu nekk ay ay xale. mais mhm. dañu war a jàng gëstu. Mhm. nu ñuy tëyee wala nu ñuy nekkee femme importante ci biir société. Mhm. parce que nekk jigéen rek ci société bi nekkul dem mariage wala solo ba jekk rafet di selfie comme ni ñu koy defee nekk ci whatsapp bi internet bi siiw. te amul dara lu ñuy jëriñ. dëkk bi. léegi ma bëggoon lancer benn conseil pour sama moromu jigéen ñu ndaw ñi. Mhm. ñoo fekk amaguñ jëkkër mais foog ñu jege suñu yaay. dëgg la man je sama yaay mi ngi gaañu yaa même temps même pas un an un mhm. mois. ñaan mhm. na ko yàlla yërëm. jàng naa lu bari ci moom. dëgg la ndeysaan ñu yaree ak lépp. ñaan naa yàlla tant que mu yore woon noonu. macha allah ah, moom dem na ñu ngi doon bëgg a jël numéro pour boole ko ci ñi ñuy defal tirage ñu gagné bag yi ay cee maam xar yaa ngi doon wax dafay rejoindre exactement lu ma mhm. doon waaj a wax balaa muy dugg ci ligne bi. parce euh, sañu sañu yaay bi njëkk a intervenir dafa wax ne que euh, jigéen toogaayam ci société bi mooy que d'abord taaru jigéen sëy mais awa yàlla defalul loolu ñëpp. Mhm. nanu xam ne jigéen ñëpp tu n'es pa c'est pas parce que da nga ne dañu ne jigéen que da nga war a sëy loolu dañ ko namm dañ ko sopp mais yàlla bu tuddul sëy si yow doo sëy te ça veut pas dire que doo jigéen te bokk nga ci société bi c'est jigéen dafa war a définir boppam ba pare gis nga sa bànneex bu ko uti faneen déedéet gis nga góor bi ngay nekkal wala papa bi ngay nekkal wala say càmmañ wala say sœur wala say frère du ñoom ñoo lay jox bànneex bànneex état d'esprit la nga seet yow yaay kan gis nga peese sa bopp du peese sa bopp jaay sa bopp déedéet peese sa bopp mooy yow nga xool lan moo lay épanouir yow ak lan nga war a mun a jëriñ sa àdduna parce que nu ma koy waxee bari toujours bu ma fi toogee wax ko nee naa leen àdduna benn livre la bu la sañu borom jox ngay tourner page yi di bind seconde bu jàll rek am na loo bind page bi tourner na jeex na mhm. te encre bi c'est indélébile du deñ très la histoire bi nay rafet kon yow en tant que jigéen mhm. jigéen bu sëy ak bu sëyul mhm. jigéen bu jur ak bu jurul dëgg la jigéen bu nekk ci àll bi wala nga nekk ci dëkku taax. lan ngay def pour ubbi sa xel. lan ngay def pour am xam-xam. lan ngay am épanouissement am sa autonomie jariñ sa bopp. très bien pour mun a jariñ sa wayjur war jariñ sa njaboot jariñ société bi. loolu la wallaay euh, Dudu boo doon boo doon mottali rek li mu wax. nee na jigéen bi njëkk wër boppam wisit mm-hmm. boppam ba pare. Ah. xam mooy kan peese boppam. Mm-hmm. évaluer situation am soo ko xam fi mu jëm. dëgg la Diop xam nga nit ki mooy li ma la wax sànq boo feeñul mënoo wane ku réer. dëgg nit ki yow dangay ngay njëkk xam sa bopp ba pare. gëm sa bopp ba pare. xam nga mm-hmm. sax nit ñi dañuy wax ko damaa gëm sama bopp mais nit ki day xam boppam gëm yàlla. loo ca teg bu bat euh, maa ngi dégg sànq ba léegi soxna Pape Xare gi wax lu am solo mu di même suñu yaay ji woote moom it wax na lu am solo ñu ngi koy ziyaara ndooy baan yóbbante àq la Nadoura nee na tey rek la mës a bég ci yow ba mu xamee ba tey ndax nee na tey moom dafa d'accord ak yow mm-hmm. gis nga Eva naam li ñu sonal ñun jigéenu senegal mooy li maam xari wax dangay gis koo xamante ne li muy xëy di daw yëpp pour boppam rek la mm-hmm. mooy dina wuti moom pour amal boppam dëgg la foo ko fekk mi ngi ci 31 wam mais boo demee këram xeeb ko soo gisee jëkkëram xeeb ko dëgg la soo gisee ay doomam xeeb ko dëgg la yàlla bu muy jamonoy sedd nag nga gis xale yi ndeysaan dañuy kof kofi comme ginaar gu ngootoot xale yi foo leen fekk nii lañuy ñuy def talu ñu sol yére mm. sangu ñu leen ci suba gi joxuñu leen ñu lekk ba suur seen tànk yi foo leen fekk ñu ngi mel na ñu jóge ci geeru kew ba bien mami seen bopp yi mën nga ci dindi kilo poobar ndax karaw yi ñooy dem ba baramoo mm-hmm. seen yaay tëdd di nelaw wala seen yaay nekk ci leneen loo xamante ne ndayale ga mu demoon wala tànn biir ga mu demoon wala leneen la mu demoon amul benn njariñ ci moom mm-hmm. gisuma dara lu mu ko mën a apporter temps boobu mënoon na ko def ci biir këram toppatoo jëkkëram da koy yokk ñu naw ko jëlal jëlal toppatoo jëkkëri ki ay doom masha allah jëlal ki ci ligne bi ajaa Adja allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax. ñu ngi lay ziyaar ak sa dëgg la dëgg la jërëjëf. ak seen mbokk bu baax mu ngi toog. ajaratu maam jërëjëf. ndax bis bu nekk dama leen seetaan. Mhm. Mhm. Mhm. muy metti lool itam. dëgg la. ñuy muñ bu baax na wax dëgg yàlla. dëgg la. ndax man ngi di la seetaan waaye kat dama ne naa dugg wax. li mhm. tax may wax damay dund fitna ku méttee métti te dinaa ci gis kër si. su may wax ak yow nii tolof tolof moo ma jàpp. ma xam ma xam ne sama xel sax nekkul ci toog ci Sénégal dafa ko génn Sénégal ndax sama wàllu liggéey lu may tax naa koy defal sama bopp. metti ci man lool. Mhm. ne dem naa ba nga xam ne yor naa bor yoo xam ne seen borom sama kasa dafa taxaw fi ñu ne lépp ci biir këru sëy laa nekk di ko mën. borom nekk këru sëyam. maa ngi tudd loolu lépp ci biir këru sëy. bëgg naa soxla naa ko sama xel nekk ñu di fi nekk dafa bari. Mhm. ci diggante itam diggante moroomam dana ndax weer bi suñu weer la. soxla naa ko ma jàppale ndax fi ma ne wax ak yow sama wàllu liggéey dafa yàqu ba nga xam ne yore naa ay bor yoo xam ne seen borom dañ maa tax may gën a daal may toujours tamit leen déglu soxna Maly tamit maa ngi dama koy rafetlu loolu wax dëgg yàlla ay àndoon. jërëjëf bëggoon naa daal ma waxtaan ak. Mm-hmm. Mm-hmm. bi seen ma bi ma lay bi ma lay jërëjëf bi ma lay njëkk a wax sax ci ci bor yi. Mm-hmm. li ngay njëkk a def démarche bi ngay njëkk a def mooy demal ci ñi nga amal. ku ci nekk ci ñoom nga toog ak moom waxanteeg moom wax ko sa biir. boobu ngay njëkk a def ba noppi. Mhm. Euh, bul quitté dinañu jël nga jël sunu numéro ci régie bi. mais mais luy dee dal jigéen ñi la maam xarit Diène une mhm. femme est venue me jóge Thiès. Mhm. vraiment mu mami mu sonn lool. sonn ku yoroon tontine yor ay yëf mujj bi yëf yi lëj ci loxoom. kooku mën na rey nit. loolu mën na la rey mën na la dof loo tout de suite communication eh ngay war a njëkk a teg ak ña nga xam ne ñoom nga la eh euh, yore. Eva eh li nga wax dëgg la mais jigéen ñi tamit nañuy def lu nuñ mën. dëgg la dëgg la baan. sa jëkkër yam amee téeméer. dëgg la dund téeméer. dëgg la dëgg la di leb. c'est vrai. ci léegi avant may yéeg. ñaari am mm. dogal nañ ma. Mm. dañoo amee ay bor ci banque bi. dëgg la ana bor ba pare dañ koo neexale seen jëkkër toggale ko ko ay ginaar. daf ñuy dal de bàyyi leen ci ay bor ñuy neexalaate. mais mais Ndoye Bane Ndoye Bane loolu loolu moo tax lu mel ni 8 mars. ñu ñu koy wax xam nga li tax. Mm. parce que tey soo xoolee toujours jigéen ci société bi. da ngay gis nga am sa doom bu góor. nga am sa doom bu jigéen amaana sax doom bu jigéen bi mooy daq jàng doom nga dem ba yàlla ubbi leen wërsëg ñu nekk ci ay poste parce que da nga doon jigéen rekk tey ci àdduna bi sa salaire c'est vingt pour cent de moins que ku góor ki mhm. xam nga loolu tamit nag mhm. ah. dañuy wax dëgg-dëgg mhm. ndoy baan loolu lu ah, lu metti la benn ñaareel bi jigéen ñi nekk ci àll bi tey boo leen xoolee ci wàllum agriculture surtout ñu ngi toll ci 43 pour cent ñoo xam ne ñooy main d'œuvre bi ñooy bay ñoo ngi ci naaj bi mm-hmm. sonn yaa ngi dégg te ba tey ñooñu ñoo yées encore parce que lan mm-hmm. parce que seen liñ leen di fay moo moo gën a néew de 40 pour cent bu ñu doon fay ku góor ki téeméer mm-hmm. yow dina si dindi ñeent fukk fay la loolu pour lan loolu dafa metti xam nga kon facilement jigéen dina nekk ci benn situation dafa dafa dafa nekk loo xamante ne mm-hmm. Mm-hmm. loolu moo takk ne que ñuy wax mm-hmm. jigéen ñi nga xamante ne am nañu baat te mun a toogal jigéen ñi te mun leen défendre ah. te mais il faut que mu mais boo leen tolloo xam-xam mbaa nga ëpp ko xam-xam nga war a mun a tolloog moom eh, eh, eh, waaw bu la ëppee xam-xam loolu autre chose loolu autre chose jël ay congé maternité demi xew ak loolu laaj ko nekk donc man xarit Diène ni ni ko congé maternité bi ku ko indi. ku la fa yóbbu ñun ñoo xëy rek jox suñu xam nga congé eh, maternité am na loolu ah, loolu am na. dafa bari euh, congé maternité. liggéey bi dem xam nga xam nga d'accord naa ci d'accord naa ci li ngay wax ci nef bi encore mu mu musuñu wax yem. ne ko est-ce que bëgg nañu loolu ñun. ñun bëgguñu parce que ñun dañu xam ne ñu yàlla may. jigéen dëgg dëgg dëgg dëgg. soxlawul tolloo ak góor. recours. parce dafa am loo xamante ne ba ilaa yow mi diin abadan daay man da leen di ump. salaama salaamaaleykum. kon mënuñoo tolloo salaamaaleykum. waaw ah, salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi woote di kontaan sant yàlla. mais man dama koy tardé nag. waaw. dama koy tardé yaa ngi dégg. waaw. bi am na solo allo benn benn ngi nii toog waaw. waaw ba nga xam ne léegi nag am ñu bëgg lu yomb topp seen ginnaaw te <laughs> xam nga. ñooñu lan looy mais man sax su demee ni mhm. a am ko jaamu yàlla. mais doo ko am nit ñi dina topp pour bëgg lu yomb. Mhm. ku yaa comprendre. bu ba yow rek laa comprendre. ba foo àggul sa xam naa ka. booba léegi am na ay ñaar am na fukki at ak juróom ci bato ma tur dëgg la. yëpp mhm. amul macha allah mais bëgg lu yomb bu demee nan noonu. bëgg naa ngeen ñëw yomb bi noo ko bëgg lu yomb li lu nekk dama jaay sama keneen sama kër mais du ma yeewu mukk damay toog sama tax xaalis mm-hmm. maa ngi kontaan na ci seen maa leen di bàyyi nag. mais bëgg lu yomb li bëgg naa lu yomb lan lu demee naka noonu. Ndoye Bane ah, li muy li muy wax li muy wax wax na ko def na la. jigéen jigéen jigéen baatu da fee bëgg a toog na may defanteeg Ndoye Bane saa bu paree ma ni ko Ndoye Bane. mais bëgg lu yomb wax na la ko parce que moom nee na la mu ngeeg këram mu ngeeg lépp. sant yàlla bëgg na sëy. waaye gis na ne que ña kay peut-être la ñuy ut moom la muy ut. bokkul yàlla tax. Ah, ah, loolu xam nga. xam nga. mais loolu yàgg nga ko fi wax. Adja Mami walaay agali la agali dañuy ñëw wut fu ñu boof lekk kër gi mhm. jaay sa kër mhm. lekk fay ginaar tàqale la ak sa njaboot soo defee yooyu lañ ciy ragal la xam nga xam nga euh, Diène euh, Ndoye dañu nekk ci société boo xam ni soo toogee guddi boo tëddee sa kaw lal ñu may seetaan itam xam naa dinañu war a mën a d'accord boo tëddee sa kaw lal da ngay mujj ne yow loo xam yàlla xam ko ci yow rek dafa doy sëkk. Mhm. keneen dootu la doy. Mhm. li may bëgg wax foofu mooy. Mhm. bu reetaan gi ëpp ñu ne mën na ree mm-hmm. boo noppee ñu ne fulla gaa ëpp mm-hmm. nga bëri jokkoo di jokkoo naka naka lañ koy waxee laamisoo soo kii la ñu ne ëppal na mm-hmm. nga téye sa bopp ñu ne kii daal dafa sévère sa jëkkër gaañu boobu rek yooyu ay paramètres yu ndaw la yu ma teg sa jëkkër gaañu nga toog def veuvage lu yàgg ñu ne muy jën moom de ba jëkkëram gaañoo dafa mel ni dafa umu sa jëkkër gaañu nga daal dee am keneen commencé ànd ak moom ba waajee dikk takk la wala di la xaw a takk sax moom de lii la yàkkamti woon ba jëkkëram gaa ñoo yàggul dara am na ku muy àndal nga sëy ak nit ki ñu ne moom de la fi jëkkëram bàyyi woon yépp macha allah jël na ko jox ko kële nit ki ñëw sax dolli la ñu ne la moytu ko mm. boo moytuwulee yow itam di nga di nga teel a dëddu man xari ñu nekk ci société boo xam ne lingeer ñun ñëpp suñu góorgóorluwulee du ñu jëm kanam mhm. parce que fii ngay xoolee le regard de de l'autre keneen ki bëtam day am solo ci yow da ngay ku mel ni Eva yaa ngi dox yaa ngi sóoraale yaa ngi sóoraale yaa ngi sóoraale ba nga xam ne jigéen ci boppam bu ñu dellu see ci ci kii jigéen dina war a mën a am yoo xam ne dina ko def ci société bi mais suñu nekkin moo ko ko dul may. aw islaam sax. Mm. et toute religion révélée de toute façon. Mm-hmm. ñoo ko bokk. Mm-hmm. Euh, maa ngi maa ngi nuyuwaale sama mbokku chrétien yi ci carême bi ñu nekk. bu baax di nuyuwaale sama sama sama famille chrétienne bi. Mm-hmm. Euh, sama say goro rek say samay njëkke <laughs> euh, awa islam sax dafa tere. Mm. loo xamante ne dañ ko def. sous la force sous la contrainte. man duma jël sama bopp. tey ma ne damay yàkkal goro par la force. par la force moo amul. da ngay def li nga mën. def ko parce que ça te fait plaisir. def ko parce que da ciy ut yàlla wutoo si sax merci wu ki lay xaar. dëgg la gis nga damay dellu di wax peese sa bopp boobu nuy wax. gis nga tey da ngay nekk veuve soxna si wax na ko. Mhm. te dañu toll ci place de la femme dans la société. Mhm. nga nga nga perte sa jëkkër ñu dëj la. ñun nag lébu yi ñoo ci yées ndax ñun dañ lay dëj ñeenti weer yeeg fukki fan yi moom da ngay toog mhm. ku la romb sax di raasaatu miir yi. ndax dafa mel ni yow li ah. day wàlle. xam nga ku ñëw di la seet. nee nañu boo boo tënjul yow sa bopp bu mu toog sab lal bu mu la jox loxo mm. ñu ber la mm. ah te yow yaa ngi yore njaboot war a dundal njaboot boobu loolu yëpp dafa nekk toujours ci contrainte yi nga xam maanaam yu ñuy delloo ca gannaaw ah, du ne dañuy kaas ay droit pour tolloo ak góor mm. déedéet dañuy kaas ay droit pour que jigéen bi nekkinam mun a mun a yomb pour que mu mun a libérer temps wam libérer xalaatam uti xam-xam pour mun a jariñ boppam parce que tey boo jariñee sa bopp rek teggeeku nga ci kaneen mhm. yéen góor ñi tey mm. utu kenn koo xamante ne amul euh, autonomul kenn ku mënatul boppam. léegi nit da lay seet si sax di balaa moo. seet si sonn na de qu'est-ce que tu fais. lu muy def la qu'est-ce que tu la ah, vie. na ba tëdd ci suuf. Ah, munoo yoroo dara ah, ci yow jëlal ki ci ligne bi nga dellu que tu fais rey nañu. allo mais oui dara takk yorul dara. allo allo. allo. roof bi lañuy ñuy dëbb noonu wala dañuy waajal 8 mars bi. <laughs> non non c'est pas euh, euh, kii ah, dëgg la dëgg la ñu ngi lay dalal ci sa émission wareef. waaw d'accord. allo. Mhm. allo. oui yow la déglu yow la ñuy déglu. bon salaam. naam. naa eh, maa ngi sant yàlla bu baax. waaw di nuyu Mamy Linguère. maa ngi lay fay jërëjëf. di nuyu ma di nuyu maam si 2 ah ndeysaan. di inspecteur boobu toog xamee na sama baat mais damay def tur bi. dëgg la. <laughs> bon tey lu tax ma lu toog teew. Mhm. mais lu tax ma participer maanaam mooy rôle bi euh, thème bi ngeen def tey muy le rôle de la femme dans la société. Mhm. gis fenn lay ànd ak muy ba mhm. maanaam femme yi dañ leen di manipuler mhm. xoolal population sénégalaise mhm. cinquante deux pour cent de femmes la xoolal tey femmes yi nekk nañ poids électoral boo xam ne c'est un poids électoral très convoité ñooy fal ñooy fal ñooy meeting yeeg mouvement de marché yeeg yëpp ñoo koy animé xolal femme mooy agricultrice mooy nourricière mooy entrepreneur mooy éducatrice mooy soignante mooy assistante problème bu amee femme mooy njëkk nekk première victime mm-hmm. bu prix yokkoo moom la mm-hmm. bu ñuy nax si jënd mbéeg njaay bi moom la mm-hmm. publicité yi moom lañu moom la ñu utiliser pour jaay seeni produit te produit yooyu ñooy doxal réew mi di doxal entreprise tigi tey Euh, message 8 euh, mars bi 2018 fële ci ONU Femmes mën naa ko wax tuuti ci tubaab euh, secrétaire général bi nee na nee na il est depuis longtemps investir dans les femmes est le moyen le plus rapide, efficace de dynamiser les communautés, les entreprises et même les pays. Mmh. La participation des femmes rend les accords de paix plus solides, les hmm. sociétés plus résilientes, la croissance économique plus vigoureuse. Hmm. Hmm. donc àdduna yëpp dem nañ ba xam ne sans femme yi dara du dox. waaye femme yi kese sans góor ñi dara du dox. voilà day fekk ngeen bàyyi yàq d'abord. baal may ma. nee na nga may ko li indi loolu mooy. femme bu ne. Mm-hmm. tey fii ci Sénégal suñu tool dëkk cosaan lañu nekkoon yu bëri mi ngi ñëw ci dëkk bi. Mm-hmm. xamuñu ko woon ñu koy utiliser. tey femme bu ne. war nañ la si yeneen lañ lay orienté. Mm-hmm. war nañ la sensibiliser informer ci sécurité par exemple alimentaire. Hmm. éducation culinaire. Hmm. dégg nga booy jënd ñu wax la les vraies informations pour yi nekk ci produit. Hmm. éducation à la consommation locale lutte contre la gaspillage loolu baan di wax. économie ndox courant. prévention danger yenn yi maanaam ci jouet yi ci yooyu mhm. soo demee banque bi ñu xam sa wareef lan la ndax ñu ñoo ko ëpp à part yi ak salarié yi te ñu ñooy si biir lu ne nit ñi defee ay di la xoxtal boo demee ci dëkk sal yi daaw demoon naa fële ci Dardia mhm. quinzaine de la femme mhm. mais boo fekkee benn réunion mais ñooñu boo ñëwul six fois dangay am problème mais ci diggante bi sa jëkkër mun na dee wala nga am malade wala nga feebar rek dangay am problème amul excuse lañ wax mais bi ma dama leen ne banque mondiale sax waxul loolu. Mhm. ñu bëri na bokkuñu walla ñu def moto dëkk bi yëpp xam ne danaa la. te eh, même Sénélec ak SDE dañuy def moratoire wala hôpital. Mhm. yaa ngi dégg nga ñëw. location mais jigéen ñoo ci gën a sonn dañu naan góor ñi. parce que xamuñu. Mhm. xamuñu nga ñëwaat ci technologie de l' information mais xoolal euh, li ñuy génnee ci internet bi. benn femme dem na. Hmm. benn image bëgg ko envoyé corom àdduna yëpp jot ko. Hmm. Hmm. mais c'est parce que matériel bu bees la bees la informé informé wuñ ko buñ ko informé woon bi ay toj maanaam yaa ngi ci formation yi ñuy wax dara waaw mais bis bu nekk sa doom bu yeewu nga ne ko boo duggee ci oto boo gisee handicap wala jigéenu biir wala mag may ko. boo gisee tali xoolal gauche xoolal droite nga doog a jéggi. mais dina ci wàññeeku. Mhm. ñu demaat tamit ci euh, kii bi euh, genre bi promotion des activités générales mais ni ñu koy waxee ak ni ñu koy defee di benn. bu mhm. bari ñuy jël ci écran yi di wax di wax yem ci quatre murs ñooñu ci ëpp du dem ci àll bi maam xam ngeen xam na li may wax. Mhm. violence violence bi nag. Oh wallaay. c'est madame Barou moom def na émission bi. non Maram Barou xam nga Maram Barou Amina Barou la. Mhm. moom ci moom maam xarit. Mina Mina Barou mooy mooy wax nii. waaw Amina Barou la. yow mu ne dafay leb tur bi yow. d'accord ah, ah man dama foog ne sax dafa jot a wax tur bi. moom recevoir nan ko fi. ci club club Ndoye Bane la bokk waaye xam naa ne itam ami des de de de Mame Khary Diène et autres waxtaan na waxtaan waxtaan fenn rek laa bëggoon mu teg fa loxo Mame Khary mhm. scola scolarisation des filles mhm. ñu maintenir leen à l'école mhm. ñu mën a jàng jigéen ñi fii léegi ñu ngi leen di teel a génne école ah wax dëgg yàlla dinañu dese lu bare ndax démb mu ne mais man man it démb rek man maa ngi koy expliqué. waxu tous les jours la sax baan. waaw waxu tous les jours la war a lekk. xam nga aw euh, soxna Baro lu mu wax dafa am importance. bu mhm. rëy parce que soo dee xool li mu la wax ci jigéen nu muy toogee ci société bi ak ki mu doon. Mhm. ci société bi jigéen ñi ñooy nduggi. wala muy ndugg nag. ndugg pour lu ñu lekk. comme muy lu ñuy sol. Mhm. lépp lu ñuy dépenser pratiquement ci loxo jigéen lay jaar ba jigéen ñi sax dañuy jëndal seen seen seen seeni i borom kër yi wala seen i papa yi wala seen i rakk yi. dëgg la ba tax na damay sàcc ci euh, Oulimata Sabo ONU Femmes. Mhm. Euh, buy nee chinois yi. Mhm. ci àdduna bi dañu nekk un milliard trois cent. ñëpp ragal leen fi mu nekk nii ndax doole bi ñu yor mhm. doole bi ñu yor dem na ba tey chinois yi bu ñu laajte woon seen bor bi leen américain yi amel kon adduna bi day day daanu day effondré wu parce que ñoo nekk première puissance mhm. ñooy nangu place yu ñëpp te loolu day wane mujjug jamono bi nga xam suñu borom tudd na ko mhm. ndax dafa ne woon dañu dem ba jëmmi jamono axiru zaman di ngeen gis ne que ñooñu muy tudd waa Chine ñooy jiitu te fi mu nekk nii dañ ci nekk Euh, may dellu rek ci li Oulimata Sarr di wax nee na chinois yi tiital nañu àdduna bi. Mhm. mais seetal jigéen ñi. Mhm. ci àdduna bi yëpp pratiquement presque ñoo fi ëpp. yaa ngi dégg ba tax na jigéen ñi bu ñu boole woon imaginez chinois yëpp un milliard mhm. trois cent mille chinois bu ñu ñoom ñëpp bu ñu taxawoon benn seconde. ñu ne leen yéen ñëpp tëbandoo leen. tremblement de terre day am. séisme séisme daal di taxaw kon jigéen nga xamante ne ñoo nekk genn wàllu àdduna bi bu ñëpp jokkalante woon. <laughs> joxante loxo joxante loxo. te loolu mooy joxe doole àdduna. tey boo gisee ñu mun a wax. ci ay ndate yàlla ci ay Aline Sitoé mm-hmm. parce que ñeneen i jigéen dañu nekkoon seen i gannaaw. Mm-hmm. bu ñuy wax jigéenu Afrique Amazon yi ay jigéen yu boole woon mm-hmm. gis nga bu nu xasee ba boole rek dañuy am doole. damay wax waa Kédougou. bu leen ragal seen bopp nekk ngeen association boo leen nekkee fédération mhm. bu si ku nekk yëkkee ñaar téeméer ngeen nekk 2012 femmes ngeen jël ñaar téeméer yooyu dugal ko ci compte ñaata la mhm. ça fait plus de vingt et quelques mën nañ cee def dara. dëgg la ngeen tàmbali si loo xamante ne yéen a ko moomal seen bopp kenn du leen ne fii ngeen di jaar ba ngeen mun a di taxaw di transformer euh, li nga xamante ne moom ngeen am. Mhm. Ah, ñu ngi jóge démb rek ci ci ci ci koko bi ñu séché ko. papaya bi ñu defar noonu banana bi ñu defar noonu. def ay récupération loo da mun foo taxaw bëgg ko jaay da koy jaay am si loo xamante ne. jërëjëf da ngay fas si sa. la ñu neexee moom itam wax nañu ne. Mhm. waxtu bi jot na. Mhm. ajaratu waxtu bi jot na doy ñu sax ndaxam ci waxtaan bi. waaye daal euh, nañu jàpp ne weeru jigéen ñi lañu ñu nekk. Mhm. te buñ ci jógee itam bés yëpp bésu jigéen yi la macha ñu lay wax ne. amee sa dernier mot ndax fii moom ci club wareef nga bokk depuis <laughs> toujours. le mot de la fin mooy juste que jigéen boo gis mu nekk jigéen bu autonome bu am doole am na ku nekk ci gannaawam. Mhm. doon na yaay walla doon na bàyyi. ñuy sant sunu ay wéjur bu baax a baax mm-hmm. ndax dañu ñuy dooleel may ñu fit man sama pap du ma am fayam parce que dama daan toog di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba tey mm-hmm. ci économie ci société ci nu mu xalaatee lii ak lii ak laa mu may mm-hmm. wax maam démb may dem ci samay maam di gëstu di waxtaan mu dellu ci li mami Linguère waxoon rek xam sa bopp xam sa aada mu doon sa doole mu doon sa racine nga koy mun a jëfandikoo pour ubbeeku ci àdduna bi bu ma jógee ci loolu nag di nuyoo sama ay sob soppe samay xarit. Mhm. Euh, fële ma jóge salon bi ñu ma defaral mu rafet. loolu ñoom Fatou ñoom ndeyam yi ñoom Fatou <laughs> maa ngi leen di sargal di leen nuyu. merci Dieng euh, borom nag ak meew ya. Eh. Euh, di nuyu itam Mariama Edou. sama bos. ndeysaan vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf Dieng mami Linguère Awa Ndoye Bane. Mhm. ci seen teewaay seen taxawaay ci ni ngeen di yeewee société bi. di leen ci encouragé ndoy Bane nag da ngay bàyyi bal yi ngay lancé jigéen ñi. mbir mi du combat jàppalante jeex na ta kon boog mbir mi du combat jàppalante la te enracinement bu ànd ak ouverture comme ni ko feu président doon waxe mhm. euh, dafay gën a yombal yu bare bare mhm. ajaratu mam euh, euh, ajaratu ma sa rob bi ndax dooma ko may ah, sama baat bi day tey dafa bañ rek. ne njaay lay sant man mii nag la gone njóobee ni xëy jàpp tey. dama soj soj mu bon sax nag soj mu bon a bon a bon. dëgg moo xam ne bëggu ko sax jege kenn. bala bala waaye feeñul feeñul. ah feeñ na tàggatoo gone njóobee ah. la jàppee beneen affaire lay <laughs> doon. jërëjëf delluwaat di wax ne comme li nga wax rek xam nga ñun jigéen ñi bu ñu nangoo nekk tame yu ret lu ñëw jàll. Mm. wax nga ko enracinement ak ouverture. Mm. waaye ñun ndeysaan dañoo ubbeeku rek te téyewuñu lu ñu am. ndax bisu tey bii ñu ngi ciy delloo njëkkal mboolem jigéenu Sénégal mm-hmm. ndax tey jii kat talaatay ndeer la fa xewoon taroon na lool mm. ndax dugg ci mu néeg taal sa bopp ci sa kaw ba mu jeex ndax daw lu ñaaw mm-hmm. loolu ku nekk xam na ne metti woon na waaye dañ ko defoon rek ndax sagal seen askan ndax ñun jigéen ñëpp looloo ñu siggil tey jigéenu mm-hmm. Sénégal mm-hmm. delluwaat di waxaat waa Sénégal ka kenn gënu leen yàlla nañu yàlla may feetu jàmm ñu feete ko ci jàmm waaye nañu xam ne man la man la joo gis mu tey ndayam buñ ci yàq buñ ci leb lu ñu mënul ndax boo la neuf la soreetul di wax ne njéeme jéen di euh, doom ci màgget kati jaañ fële ci Rufisque maa ngi lay wax joyeux anniversaire sama rakk bopp sa yaay nee na bég na lool lool lool ci yow Adam Ndiaye nag moo génn fii mi ngi ci 77 151 56 27 Diva Couture Khadim Diouf Nadoura yéen ñëpp gis naa ni ngeen jàppale sama combat jërë ngeen macha allah ndoy baan jaajëf Eva man may waxaat ak jigéen ñi rek Euh, nañuy bàyyi di occuper trop seen jëkkër yi fàtte seen doom yi ba tax doom yi ñu leen di sàcc ak di leen rey mm. jur doom sànni daara jur doom sànni ci mbedd bi jur mm. doom nangam doo toppatoo sa doom doom fanaan mm. xaw ma fu doom yendu suñu ko reyee ci mbedd mi mm-hmm. wala ñu sàcc ko yow bu la metti mm-hmm. dañuy occuper trop seen jëkkër yi ba fàtte seen doom yi mm-hmm. donc te doom ne naan doom nawle la te nañuy bàyyi di leen teel a génne ci école bi surtout doom bu jigéen bi suñ bëggee am ay maam xarit yéen am ay Keba am ay mami am ay Aminata Mbengue Ndiaye am ay nangam ak ñoo xam jigéen ñoo xam ne dañuy am njariñ amal njariñ société bi mm-hmm. kon boog ñu leen di tàggu ba suba ak jàmm insha allah jërëjëf ndoy baan bu leen tàyyi di wootee ci vingt 88 628 22 22 88 628 65 65 88 628 04 05 bu ko defee dinañ leen may bijou en or sànq ñu ngi bëgg téye kenn waaye nag yéen ñëpp ngeen dem euh, ki ko mayee bijou en or or bi di bijouterie Yorolam ña nga nekk ci 33 821 60 04 33 821 60 04 bu ngeen fa wootee di ngeen am bijou yu rafet itam bi jiitu mooy ngeen woote fii ca télévision Futur Média ndax ngeen mën a am bijou yi suba moom dinañu am plaisir ak mbégte bu mag dalal ñi nga xam ne ñooy jigéenu yi te bu nu waxee jigéenu yi ni ngeen ko déggee noonu la jigéen ñi intégré nañu gendarmerie depuis 2006 muy bànneex ci ñëpp ndax bu ñu xoolee jigéenu militaire yi ñoom defe naa ca jamonoy 86 la ñu ñëwoon waaye nag ñu dem ci ñi nga xam ne ñooy jigéenu gendarme gendarmerie bépp jigéen boo xam ne da ngay sol tenu di aar karange keneen karange benn jigéen kooku dañu lay beral nuyoo en ce jour bépp jigéen boo xam ne yaay nga yaa ngi jur yaa ngi nàmpal yaa ngi yar dañu lay beral nuyoo képp koo xam ne bu nit ñi newee ca kër ga yaa ngi ca bureau ya dañu lay beral nuyoo mhm. ba ci ña nga xam ne bu ngoon jotee ñu dem fële ca Soumbédioune lal daal dee jaay jox ñu ay jën yu baax kër yi di liggéey ña nekk ci dëkk dëkkaan yi di dem ndax nu jigéen gën a favorable ñooñu ñëpp macha allah ñu ngi leen di beral nuyoo di balu ak suñu ay wayjur yu jigéen ndax li ci biir kër dafa bare te metti lool remercier nañu équipe technique bi nga xam ne Mia moo ko jiite woon macha allah ñu ngi leen di remercier ñoom petit ak ñoom jili du ñu fàtte ñoom Babacar remercier itam ñi baaxoo di ñu solal Eva Tra mi ngi remercier képp koo xam ne da nga koy solal Bamana Couture du ma fàtte nag di remercier aussi Ndey Ami Coiffure Fatoumata Coiffure mi nga xam ne saa su ne bu ma fa duggee mu teral ma defal ma lu rafet ñu ngi leen di bàllu ak bu baax a baax di leen jox rendez-vous incha allah suba ànd ak jigéenu gendarmerie bu leen tàyyi di woote ndax ngeen gagné parure or jërë ngeen jëf.